ibnul xadiimu sama réew maa ngi lay nuyu tey ñaan yàlla may leen ndimbal asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci ndigalul cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke xalifa général des mourides yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér ci njiital sëriñ sidi mbàkke xalifa njabootug sëriñ abdul ahad mbàkke gi ànd kook mboolem njabootug sëriñ abdul ahad mbàkke gépp ñoo am mbégte di leen yëgal a woo ak fàttali màggal gi ñu jagleel sëriñ abdul ahad mbàkke di bis bi mu gënee àddina di ñaar fukki fan ak ñetti ci koor yi ren ji war a dëppoog dimanche Xaadim Mbàkke moom Serigne Abdoul Ahad di ko yëgal mbooleem jullit yi rawatina taalibe yi mu ko yëgal mbooleem njabootug Maam Mara Mbàkke gi mbokk yi soppe yeeg wóllëre yi mu ko yëgal it jàngkatu alxuraanul karim yi ak jàngkatu xaside yi sëriñ bi di ko yëgal it mbooleem kilifay diine yi ak kilifay politique yi di ci jiital président de la république Macky ak mbooleem gouvernement am di ko yëgal it mbooleem parti politique yi nekkee ci réew mi di fàttali turandooy Serigne Abdoul Ahad Mbàkke yi yi ñu doon am gi commission culturelle ak communication di fàttali alxuraan gi ak njàngu xaside yi ak mboolem activité culturelle yi ñu fas yéene amal ci màggal gi ñu dooree ko ak table ronde bi ñuy amal le mai bu 17h jotee ci kër Serigne Abdoul Ahad gi jeudi dëppoog le mai 2023 daayira Matlabul Fawzeyni bu doomu ndongo yi daañu amal ngontum xaside ci kër Serigne Abdoul Ahad gi vendredi mai sëti Serigne Abdoul Ahad yi daañu amal conférence bu mag bu 21h jotee samedi le mai commission culturelle émission bi bu 10 jotee ci kër Serigne Abdou Lahad Mbacké gi dimanche le 14 mai di bisub màggal gi daañu yendoo njàngum alxuraanul karim ak njàngum xasida ay bernde ak i ziar ginnaaw buñ julee timis daañu amal jàngat ci discours Serigne Abdou Lahad Mbacké yi ànd ceeg commission culturelle ak communication bi ñu koy amalee ci kër Serigne Abdou Lahad Mbacké gi ci guddig màggal gi daayira Sahaadatu Daarayni ak Islaahu Daarayni daañu ànd ak mboolem taalibe yi fanaane njàngum alxuraanul karim ak njàngum xasida ci bâche bi nekkee ci kër Serigne Abdou Lahad Mbacké màggal gi dimanche 14 mai 2023 lay doon Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Abdoul Ahad di ci woo ñëpp bàyyiwul kenn di ñaan képp ku teew ci màggal gi yàlla faj say aajo ci barkeb Cheikhul Khadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yaa yor la Bamba yoroon sampaan nga kër yi fi woon mbooleem Cheikh Bamba naa loon